yar aw góor ku jigéen ci ñu jàng alxuraan yar leen yarub diine ci loolu lañ ko xaman ba ni mu tëdd tey doonoon koo xam ne kii jàmbaar la woon waaye ku bëgg lim doon def la te gëm ko te itam te man ko nag doonoon koo xam ne kii ku ubbeeku la te itam ku loon borom xam-xam yi seen xam-xam la woon jërëjëf. xam naa mardi daal lañ jàpp ne la fi ñëwoon mardi dellu si ni mu génn àdduna jàpp naa daal mardi la fi ñëwoon wala soriwu ko bokk. noo ngi nii bëgg nga incha allah jëm ak moom Kaolack soobee suñ borom benn ca Kaolack wala ci lu soriwul Kaolack waaye daal fi nekk nii Kaolack la jëm ak moom incha allah bëgg koo gunge yàlla na ko yàlla yërëm. Ah, am naqar ak rek to Imaam Ndao nekk koo xam ne wax dëgg la nitu diine la woon koo xam ne li mu jàngale ci ay dongo tabax ko ci ay daara wax dëgg si la néew na ñoo xam ne def nañ ko fii ci Sénégal wax dëgg la man mi sama goro la. to gëm naa ne wax dëgg yàlla bés bi nga xamee ne jublu naa ci eh, ci sama mariage dem ci moom moom xoolul sax fan laa dëkk xoolul lan laa am diine rek lay xool ci nit wax dëgg yàlla imaam Ndaw nekk na koo xam ne li mu wax fii ci àdduna bu ko ko yàlla fayee te dina ko ko fay incha allah moom am nañu eh, kii eh, ngeen man ci moom. di sant suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xamante ne daf ñu boole ci ndaw yi nga xamante ne dañuy topp imaam Ndaw. Euh, Imam Ndao bëgg diine moo ma boole ak moom topp bi may topp lislaam moo ma boole ak Imam ali Badara Ndao du dara lu dul loolu kese la moo tax bi yàlla dogalee nattu bi dal ci kawam fii ci réew mi ati yi passé ñu koy jiiñ li nga xamante ne mënuma tudd sax baatu bi ndax baatu bi nu mu bonee ñu koy jiiñ ki nga xamante ne kuy sujoodal yàlla nit ki nga xamante ne bu yëkkatee loxoom di ñaan yàlla li nga xamante ne day amal njëriñ umma bi julliti yëpp ñu koy jiiñ lu bon loolu ma ne lii bépp jullit bu seetaan ëllëg di nga layoo ak suñu borom parce que pexe noonu yi la moo tax depuis jamono boobu maa ngi koy suivre di koy suivre depuis procès yi nga ko doon toppee tribunal musuma ko raté fépp fu ñu tuddee Imam ndaw rek dama koy suivre di koy topp moo tax bi ñu nee Imam ndaw dafa feebar bokk naa ci di julli di ñaan yàlla mooy xëy tey ji ni ñu ne Imam Ndao génn na àdduna ma ne ñu ngi sant yàlla ndax Imam Ndao mënoon na génn àdduna ci lënt-lënt mooy lan set na wala setul waaye ñu ko tuumal ñoom ñoo dellu setal ko ba mu set wécc yàlla door ko woo mu dem wuy si ji suñu borom loolu ndamu lislaam la loolu ñun dafa ñuy préparer ñu préparer ni ëllëg amaana tuuru keneen la waaye li imam Alioune Badara ndaw taxaw mooy bi natt bi ñëwee dafa ne jullit yi na dal natt bi du dara natt la bi nga xamante ne day ñëw day jàll nekk leen ak yàlla bu leen toj bu leen yàq bu leen xeex dee leen di julli di may ñaanal yàlla nu mu yàgg-yàggee mbir mi dina set mbir mi set na wicc ana mu tey imaam Ali Mbada Ndaw continuer nekk di yéeg ci mimbaram di jottali kaddu laa ilaha illallah nit ñi di koy déglu adduna bi yëpp foo muntu nekk ci adduna ba ci tubaab bi yëpp xam nañu kan mooy imaam Ali Mbada Ndaw lan nangu bi nattu bi ko yàlla teg tey jii nii ñu ne ñu imam Alioune Badara Ndao feebar na ñu ne nañu cotiser démb la mbir mi siw ba daa li ñu soxla am nañ ko ñu xëytee ñu nañu imam Alioune Badara génn na àdduna xaalis boobu sax demagul ci moom kon ñu ñu ngi sant yàlla amuñu benn tiis dañoo am bégte parce que lii lañ doon gungee imam pour ñi ñuy xam kan mooy imam yàlla ñu am ay sénégalais ay julliti julliti nga xamante ne dinañ taxaw taxawaay bi imam Alioune Badara taxaw ñun ñu ngi ci suñu xol dafa sedd guy gunge bi ñu ko war a gunge ak fekkee bi ñu ko fekkee njëriñ bi ñu am ci moom man suma doom bi ndaw bi imaam Alioune Badara Ndao ñi mu jàngal ñoom ñoo jàngal suma doom ñaari at la def mu mokkal alquran te bi ma koy bëgg xalaatuma ne xaw moon ni ki jàng ki imaam Alioune Badara Ndao jàngal dina ñëw jàngal suma doom dama ko bëgg te yàlla tax xoolal jaar jaar bi moom ñi mu jàngal ñoo jàngal tey sumay doom kon suma xol sedd maa ngi leen di gërëm yéen journalistes yéen tamit taxawaay bi ngeen taxaw taxawaay bu rafet la ataaka xadimun taariun rasulullah la ilaha illa allah rasulullah